Bienvenue sur Salam Vision. mbokk di gërëm ñëpp di sant ñëpp jàngatu tey bi. Euh, ñu ngi koy jëmale euh, diggante les relations entre Sénégal ak France diggante Sénégal diggante Sénégal ak France euh, relation bi yàgg na du tey loolu depuis temps colonisation nit ñi dañu war a xam ni France ak Sénégal ñoo bokk lépp sur tous les plans boo xoolee suñu constitution presque. constitution France nuro nuroo doxalin jamono de Gaulle 1958 jaaroon fii à la place Protet di ko wooye place de l'indépendance africain africain yi bari nañu la seen indépendance seul président bu Guinée Sékou Touré Ahmed Sékou Touré moo ne indépendance non kooku mu yoon en ginnaaw bu ñu tegoon ñëwee Dakar fii la doon wër douane l'Afrique francophone euh, jamono yooyu le président Senghor teew fa woon ñi fa teewoon mooy ñoom Valdiodio Ndiaye euh, ñun fekkewuñu ko woon boobu ay tout tànk lañu woon Sénégal mi ngi am indépendance le 4 avril 1960 ba seen réewu Afrique yi euh, ñii kooku moo du mooy woon de Gaulle buy le président Ahmed Sékou Touré mbokku téléspectateurs yi euh, jàngatu tey bi euh, li ñuy waxtaan mooy diggante Sénégal ak euh, France réewu France ak réewu Afrique yi boo leen xoolee le franc CFA France moo ko garantir CFA mooy communauté française d'Afrique atum la ñu garantir le franc CFA am na dëkk yoo xam ni dañ si génnoon euh, le Mali bokk woon CFA euh, la Guinée-Bissau euh, yeneen réew mais ku mel ni Mali ñëwaat na à la zone du franc CFA France dafay jàppale Afrique sur le plan militaire day jàppale Afrique si mbirum koom-koom day jàppale lëkkaloog Afrique sur tous les plans scientifique économique jëm si mbirum environnement dans tous les domaines France yàgg na lëkkaloo euh, Sénégal ak réewum Afrique euh, surtout le Sénégal di aussi gërëm suñu soldats yi mooy les anciens combattants def nañ fi mucc def nañ fi ay mission yu am solo sur le plan international Sénégal intervenir la en Algérie Sénégal jàppale na France bi ay suñuy soldats suñuy maam faat nañu dans des conflits euh, lépp suñu jàmbarte mooy suñu armée kii armée sénégalaise armée sénégalaise nag euh, ñi fépp intervenir ñu partout en Afrique euh, mooy mbootaayu xeet yi au FINUR au Liban en 1975 au Chaba au Zaïre en 1978 le Sénégal intervenir le Congo Sénégal intervenir en Gambie partout fii tànn euh, euh, suñu soldats seen jàmbarte ils ont intervenu militairement loolu mooy armée sénégalaise France nag boo xoolee partout am nañ fi ay bases en Afrique kooku mu yam ki au temps de la colonisation euh, le général de Gaulle ne waxoon na képp ku bëgg indépendance en Afrique jëlee seul Sékou rek moom moo ne woon man soxlawuma indépendance mais Sékou Touré nekkoon jàmbaar nekkoon un panafricaniste ku mel ni y avait d'autres présidents Léopold Sédar Senghor ñoom Amani Diori ñoom Houphouët-Boigny Habib Bourguiba tous ces présidents là euh, ñoom euh, dañu mujjee euh, défendre seeni charte Touré di wax ni encore que Sénégal France moomul Sénégal li ñu lëkkaloo rek jàmm rek moo nekk suñu diggante c'est des relations au beau fixe dans tous les domaines léeg-léeg nga dégg ñu naan France euh, moo ñu moom man la d'accord aussi France dañu yàgg a lëkkaloo au la colonisation ba léegi Sénégal la ñu France euh, dans de très bonnes conditions peut-être ñi xamul rek ñoo fi nekk di wax loo xam ni c'est des fausses informations de fausses diffamations loolu baaxul mais li gën a am solo rek euh, nañu bañ a fitna. entre euh, le colonisateur. Le colonisateur euh, était là bel et bien. Il, il a intervenir au Sénégal. Bon, il y avait des assistants techniques français dans les lycées, à l'université. Euh, C'est des assistants qui ont été dollars suñu njàng bi loolu moo doon le rôle de France jamono yi indépendance ba à l'heure où je vous parle ambassade de France bi nekk Dakar Euh, ambassadeur bi fi ñëw toujours mi ngi seet ñuy rataxale diggante euh, Sénégal ak France du tey euh, nee na depuis au temps de la colonisation avant Senghor jamono yu tubaab yi xoolal par exemple le cas de Sëñ Touba le fondateur du mouridisme Sëñ Touba xam na tubaab yi demoon nañu ba koy sonal di ko buntu xatal si ni jël ay kanam yéen ñëpp jéggal naa leen y avait gouverneur y avait le gouverneur fédéral y tous ces colons jamono yooyu ñi woon Dakar wu Saint-Louis Dakar un peu partout ma ne diggante Sénégal ak France amul benn jafe-jafe France dañu yàgg lëkkaloo euh, dañu yàgg jàppale surtout tous les plans mais Sénégal am na indépendance am ñun kenn bi ñu conditionné tey kenn bi ñu conditionné il faut nit ñi xam loolu que nag ñun ak France relation bi dafa yàgg di wax aussi le président Sall euh, de renforcer. nous devons renforcer l'unité, la cohésion et la solidarité avec la France. Euh, renforcer aussi euh, nos relations économiques dans tous les domaines. France, le Japon et Sénégal, euh, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la coopération, dans le domaine du partenariat. La France, euh, du Sénégal et le la France intervient partout euh, sur le continent africain.